Aliou Ba ak sa mbay jërë ngeen jëf kontaan ci euh, internet yeeg euh, auditeurs yi euh, ñu ngi waat seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye ak Malal Junior Diagne. Mhm. Malal bu ñu nekkee tey en retard rek c'est grâce à lui ndax moom lañ doon xaar jaañ maa ngi lay ziar. <laughs> jërëjëf waa man nag li ma taral tey moom. grâce à lui mais à cause de lui. à cause de moi donc donc vous êtes en retard à cause de moi. à cause de lui mais da ngaa bëggoon a nekk léegi de retard. à cause de lui à cause de lui <laughs> ba da ngeen maa kompaloo. non non non du ma tontu. man sax su ma su ma tardé liggéey bi ma tardé. waaw parce que mënu ma def damay def xalaas léeg-léeg ma bëgg a anticiper def journal parler tam léeg-léeg da ngay profité parce que gars yi ñu dugg ci ay séminaire ak yooyu doo leen mën a jot. te comme que dañu jëm si combat bu am solo si weekend bi mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé mhm. ki ma doon interviewé dafa am ay information yi ma waroon jox parce que dañoo am ay xabaar ci open press Modou Lo suba. Mhm. te bëgg moom loolu rëcc ma. te mu mën ko dugal ci journal bi. te journal ba war a jàll te journal ba war a jàll. ngay togg jamono ji waaw loolu laa nekkoon waaw. jaañ loolu neex defal maa ngi leen di ziar di leen nuyu. waaw. mu ngi leen di fay bu baax di leen ziar ci yàlla. soo pare moo la maa ngi sant bu baax Aba maa ngi gërëm partenaire yi également Euh, euh, batterie Sisa. Mm. leen di remercier bu baax a baax di rafetlu ni ñu àndee ak ñun ci xalaas di leen wax ne ñi ngi si Cap Foire ci wetu gendarmerie bu Foire bi partenaire beneen bu ñu àndal ci xalaas mooy euh, Africa Fly Tour di leen toppatoo ci assistance visa di leen offrir possibilité ngeen mën a gañe seen green card dem États-Unis d'Amérique gaaw leen gaaw balaa bindu mi di jeex ñi ngi immeuble promo import en face école Manguier 2 seen numéro téléphone di 77 027 22 22. 76 341 40 40 wala 33 858 77 52 ñu waxtaane vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom ñu indi gam bi nga xam ne moo di euh, vite fait Optique Vision Plus Sénégal lunette partout et pour tous di ànd ak ñun ci xalaas ñu leen jaajëfal jaajëfal it savon créole di saabu bu baax bi nga xam ne kenn dootu ko laajte ci réew mi saabu bu baax lool ci yaramu doomu aadama luy impurité ci sa yaram boo utiliser savon créole surtout carotte bi da koy dindi bu fekkee danga nga bëgg looy toppatool sa peau jëlal savon créole miel wala citron ah baax na ci lool ñu leen di jaajafal bu baax euh, ñoom ñu ñuy àndal ci ci xalaas Ababacar am na solo Ndiaye euh, bu ko defee bu dee am na xalaas boo xam ne express ñu mën cee dem bu amul nag ñuy commencé xalaas xalaas express bi de xanaa damay junj rek bàyyi ci ah. fi tegoon démb ku doon dénoncé dealer bu nekk Médina fii waaw waaw boo di nag yooyu waaw am na lu ca topp nga xam ne comme mbiri police ak gendarmerie daan du mhm. moo tax euh, am na daal ca topp. Ah, action am na action daal ba mu leer voilà mi ngi noonu am na daal lu ca topp. Eh, ak kii fi tegoon itam démb kii njongu woon njongu ngaamaan ki waaw waaw am na docteur bu ma la message dem effectivement moom it sax kay am na. docteur bu mu doon jéem booleel ci guddi gi. muy waa ji wax ne dafa bëggoon ku ko xarafalaat ci sutura. Mhm. ndax ba muy doon xale dañ ko ko defal te baaxul. mu nekk mag am soxna mais daal gis na ne. Mhm. Euh, bi mu yor ak bi nit ñuy yor du benn. moom njongu ngamaan la jongu du mat ngooy njongol normal ah. Kaolack Saalum Saalum dañu doon jong mooy ci rek bàyyi hmm. mooy njongu njongu mooy njongu ngaamaan dañ ko war a yóbbu nag jongal ko jongal tigi jongal hmm. dëgg dëgg jongal jongal dëgg bàjjanam ñëw dàmp ko jël gëre su bëy waaw hmm. ah, waaw tubaarkàlla yi amul ay sentiment fii dañuy wax affaire mu leer ñu jàll ci <laughs> <laughs> leen di kii c'est le régulateur. waaw gère Babacar Diagne CNRA. waaw kii gère yow maa ngi yow Walfadjri ak seen TV. am teel teel. teel ay lii du jàll ak lee du jàll ñun site internet. ñun yow télé <laughs> yow di xaaroon également ñi am xalaas bëgg ko partagé ak ñun ci 77 150 17 17. wala 76 160 17 17. mi ngi noonu. Mhm. Aba. Mhm. Diagne. dëgg tey dañuy def spécial immigration clandestine. Mhm. mais tey ngeen di dégg loo xam ne. ay euh, hmm. la illallah saa suuf si ñàkk ñama ñumri est-ce que xam nga xam nga jaañ jom ju bari day sànq borom. Hmm. immigration clandestine ñi ñu ciy dégg mooy ay gaal yu ñu jàpp. Hmm. ay parents yu ñëw di lijjanti seen ay doom. mais abaa dinaa la dégtal ci xalaas ay témoignages yoo xamante ne ji ci immigration clandestine. Euh, na ñëpp déglu. acca ki ñuy njëkk a déglu Aba. Mm-hmm. Hmm. dalay lay gaal gi mu jëloon. dugg ci mook jabaram. ah. waaw. mook jabaram ci benn gaal. ak ay client gaal yi yow li ngay fay ak li may fay ak li keneen di fay bokkul ndax ci place yi maanaam ci position yi. Mm. waaw ci la différence prix am. fa ngay déparé. waaw. Ah. ci gaal gi violé nañ fi jigéen. ci biir gaal gi. waaw ñoom ñuy gis. ci gaal gi xale dee na ñu jël sànni. ñoom ñuy gis ci biir euh, ba ñu ba ñu ba ñu wëree wër wër wër wër bay waaj a dugg Maroc garde côte marocain yi di leen dàq ñu dawee Maroc wutali gànnaar ñëw ba ci yoon bi seen carburant jeex capitaine bi tourné gaal gi gaare ko accosté ko mbuur ne leen xaar leen ma ma ñëw ku ne ma jox la cent mille nga mën a am loo delloo fa nga jóge woon ñu wàcc seeni bagage toog di xaar capitaine bi ba léegi gisuñu capitaine hmm? kooku premier témoignage la dinaa la indil ñoo xam ne gaal gi ñu jëloon dañ ko bokkoon ne ki dëmm. Eh? ñu leen di coob benn benn. di lekk billaahi. de Ndiaye bàyyi li ngay wax mooy deuxième bi may njëkk la déglu kii d'abord. nañ déglu. bi tabaski dese ay 15 jours si euh, leen embarqué woon si leen demoon. ñu ngi déparé woon Mbour. Mbour lañ déparé woon. Euh, gaal gi nag booy compter minimum daal minimum minimum li ci nekkoon daal mat dina mat cent cent cinquante mais comme ñu bëri lu ñu ci xamul mooy gaal yi paas yi dafa bokkul ñi naan trois cent mille ñi naan quatre cent mille mais ñun voyage bi ñëpp xam nañ ne dañuy soxla lekk ak naan ci voyage bi. léegi ñuy toogee ci gaal gi ñi nga xam ne maanaam ñëpp leen paas ñoom ñooy feetu Korité boobu amaana ñi gën a néew la leen paas balaa boole di yegg si si ñoom day fekk ñenn ñi sax du mbaay mu jàll mu doon voyage bu métti. ñun def nañ dix jours ah dix jours lañ def si géej gi dix jours mais biñ départ moom amul ñu woon problème franchement trois jours kaa di njëkk amul benn problème mais cinquième jour bi si le problème bi commencé. que cinquième jour bi benn journée boobu rek lakk nañ si ñaari moteur ñaari moteur gaal lakk na ci coow li commencé jàppal fii bàyyi fi gaal gay jigéen amoon na si amoon na jigéen amoon na xale aussi. Euh, au sixième jour euh, le problème yi gën a empiré parce que am na ñaan ñoo xam ne ñu ngi woon ci gaal gi dañ daal dañ toog bu saag waxatu waxtuñ tuñ dara bon ñene daal ñi ñi deenan mais noonu leen saanee si géej gi ñun côté bi ñu ne woon euh, bokkul ak côté yu jigéen ñi ñoon parce que jigéen ñi dañ leen xëcc ba ci ñoom ñoo doon toog ñoo ñëwoon ca cat gaal gi moo leen waxee nii ay viol sax da am ci gaal gi jigéen ñi dafa gaare leen doon saako c'est laay walaay mu doon doon bu garaaw koo xam ne day am si biir gaal yi wala nga doon koo xam ne nit ku tuuti yàq koo xam ne amoo doole wala dara sa saak bu ñu yor lépp du ciy lekk gaa doon koy nangu ñu si bëri dañ ko boo bañee ñu jàpp la sànni si géej gi donc tey forcé yow ba mu doole rek wala moo benn fitur la laaj nga joxe ko capitaine bi dafa ne woon sept jours waaw dina woon neuvième jour nag waaw géej gi yëngu-yëngu bu métti sax yëngu na yëngu bu métti bu métti métti sax ci la njëkk am xale bu gaañu si gaal gi bokkul ak ñeneen ñaar ñeneen ñaar ñoom ay mag la mais am na xale bu si gaañu kooku tamit noonu doon gasaanee si géej gi muy àndoon ak benn magam bu jigéen xale bu góor la ñu àndoon ak benn magam bu jigéen ci lu mu wax nee na rakam la au jour tamit ñëw nañu ba bay waaj génn Maroc waaw génn Maroc foofu moom marine marine marine marine marine bu Maroc moo nu kar foofu foofu dañ noo kar moom parce que gars yi doon bañ a jàll léegi yenn gars yi di yuuxu quoi ne capitaine bi bu nangu gars yi jàpp parce que bu jàppee dina si ñoom parce que dañoo dégg ne dañ lay emprisonné foofu capitaine bi jéem a naxante gars yi ba def détour marocain yi topp gaal gi ñun presque du sore sax ba ba ñuy génn noa waaw dem nañ ba côté noix de pour capitaine bi ne essence bi di mu def dëppaat nañ xool noonu rendee ba xool suñu teer ñu nekkaat ci loolu encore ñu naan déet ñu naan waaye mos ñoo xam ne bu ñëwee ba côté noix de foofu dana mujj soobu feey pour tefes noix de foofu des fa mais ñun suñu gaal bi naxande nan ba mu tourné waat mbuur mu tourné waat waaw biñ ñëwee itam. capitaine bi fu mu toog di wàccee moteur yeeg essence bi noonu wax maa ngi ñëw eh, ku si nekk ma delloo la cent mille nga ñibbi sa kër fi ndaje woon fa lañ toog di ko xaar aussi <laughs> deux jours gis nu ko dégg na ko boo ko waaye du la jël en fait euh, noonu lañ tasaaroo bon bi ma ñëw aussi xam naa ni euh, sunu waa kër jaaxle woon te tooñ naa leen bon. sawaay sonn na ci xalaat na bu sonn dëgg yàlla xalaat na bu sonn sama soxna aussi tamit ma toog di imaginer yor doom ba mu quatre mois après nga dem tey si tey ma desoon ci géej gi après na lañ ko koy nettalee quoi ak nekk taaw nga li gën a tax nag ma demoon du fu ñàkk parce que yàlla maa ngi maa ak métier mën naa liggéey liggéey yu bari si chantier laa nekk amul machine bi daw ci chantier te mun ma ko dawal amut sant naa ci yàlla bu wér mais des fois da ngay nekk ci chantier yoo xam ne yow soutien de famille da ngay rayante pour sa salaire mën see jot dundal sa waa kër mais des fois nga toog trois mois wala quatre mois kenn du la fay aussi dafa xaw a metti bon ma taxoon ñu doon jéem a tànn chance di xool daal. doon xool yàlla def parce que bi ñëwee regretté nañu ko amee dangay toog jamono sax dangay toog ne sa xel di si nekkaat parce que ba tey laaj bi dafa métti dangay liggéey di nga am asuut ba ci fayal location gën a ci dépense yow dangay faatu sa bopp l'essentiel na sa waa kër na sa waa kër naan rek yow sa bopp garaawul ba tey sànq yow si dañu war a jàppale ouvrier yi di toog 3 mois 4 mois fay ouvrier bi tamit daanaka boo ko fayee lépp bor la koy fayee a taxoon waaw di wax sama mbooloo rek bon xelalu ma ko kenn nag wax dëgg yàlla mais yaakaar naa ne ku ci yàlla tudd daas daas jaar bañ xeeb dara tamit so job moom am na ci dëkk na fi dara ba gis leneen lu ko gën rek bi muy dem nee na bàyyi na jabar ak doom boom quatre mois. déjà. Mhm. parce que coono bi. ak ni mu ko dundee. ba Maroc ñu dàq ñu daw ba Nouadhibou. moom kay lu ne daj na. mu dellu si ba Nouadhibou ah. doon dem Nouadhibou. non dañoo dem ba Maroc. ci yoon waaw. Marocain yi ma gaar ko ci dàq leen ñu daw dem dem dugg si au Mauritanie nii. ci yoon bi la seen ci yoon bi la seen kii jeex. noonu essence essence jeex. waaw ci yoon bi la seen kii jeex après ki leen doon dawalal moom moo croisé ñëw taxaw fi. ñëw ñëw mbuur pour ñu wàcc mu jox leen ku nekk cent mais nañ sant mais joxu leen ko. boobu lañ ko waaye seen bakkan mucc mais nañ sant yàlla ba ñu accosté Mbour. seen bakkan mucc na. Diagne. waaw. nañu nañu nañu nañu dimbale jeune réew mi. Mm-hmm. ñi ngi def ñi ngi góorgóorlu. mais boo dee wax ak ñoom ba ngay xam ne bari nañu amatul espoir. na nekk seen priorité. c'est pas une raison na c'est pas une raison. ba nekkuma fi naan war nañoo jël gaal war war ñoo jël gaal baa fi ma ko war a waxee du fii. Mm-hmm. mais man duma ko def. ku may déglu du ko def ku bokk ci man di ko def. mais nag nañu dimbale jeunes réew mi ñu am ci luñ jàpp. Mm-hmm. ak dund boo demee ba di ko tayle. Mm. war nañoo seet li tax nga di ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. nee la jom ju bari day sànq borom lekk-lekk. nañ leen dimbale. jaañ ñi kii moom dafa jël gaal ànd ci ak soxnaam. yàlla nattu leen ci gaal gi am borom bëti guddi. nee ci gaal gi la gisee. nit xiif di lekk ndawal te ñu yàpp ci gaal gi. Ah, ba gaal gi départ ndawal duggalu ci. waay li leen feeñal mooy def ci am ñaari jigéen yoo xam ne dañoo am ay rab. Hmm. bi ñu sayee nag ci leen commencé di dénoncer ñi ci gaal gi te ñu leen di tooñ. Hmm. ñu góor góorlu ba jàpp leen yeew leen. Jaañ kii di waaj a wax Ousseynou Diop la waxal mais kii li mu daj ci ci ci ci ci ci gaal gi. Hmm. déglu ko. maa ngi jóge woon mbuur dem Gambie di campagne. ba am fa soxna. bi mu déggee ne gaal gi day day tëgg gaal après si laa gëstu ba laajte ba xam ñu diw mooy tëgg gaal bi après si laa laajte paas yi ñaata la ñu ne ma 500000 la si laa waxtaan di wàññilu di wàññilu ba dernier moment bi sax nii muy jël parce que mag sama jabar dama paasal sama jabar paasal sama bopp pour dem ñu nag man Sénégal Sénégal laa ndee ma yebe gaal gi Gambie la jóge mais Sénégal nee ma yebe parce que gaal gi da doon yaale ay fu ne yaale na fa yaale na Sénégal yaale na Gambie am na ñoo xam ne client yoo xam ne Sénégal nee leen yebe am na ñoo xam ne Gambie nee leen yebe ñun nag bi ñu départ rek léegi si géej gi def nañ sept jours si géej gi mais sept yi ñu def si si gi yëpp ay dund yu tolof tolof yi tar nañ dund si géej gi ay dund yoo xam ne ku ma waxoon suma àdduna loolu dinaa ko gis du ko mës a gëm parce que dama ko daan dégg mais daanu ma ko gëm parce que du bii mooy sama première fois ma dem clandestin bi mooy sama ñaareelu yoon yoo xam ne dugg naa si gaal pour dem clandestin mais li ma gis si gaal gi mosuma ko gëm musuma xalaat noonu na sax loolu dina am ci biir. waaye nag liñ dund si gaal gi lenn la tar na metti na lu xew na ci gaal gi. waa gaal gi amoon na ay jaasi amoon na ay xeex. li waroon nag ma bëgg dem parce que damaa gis sumay grand frère sumay frère yoo xam ne day jóge woon fii dem. ma gis seen liggéey ak man sama liggéey ñoom distance bi ñu demee léegi yàggul ma gis na ñoom am ne changement bu baax a baax looloo waral ma ne naa forcé déema dem peut-être su ma demee dina gën kaw fi ma nekk nii ñoo ñi des si géej gi moom bari na parce que gaal gi dafa amoon ay niti guddi gaal gi dafa amoon ay niti guddi moo waral ñi des si géej dafa bari avant xeex di am si gaal gi ñi doonoon niti guddi ñoom ñoo yore woon gaal gi guddi ba guddi nag dañuy génne te guddi bu ñu génnee gaal gi day fees tel yow da ngay jaaxle sax da ngay xam ne gaal gi nombul bi mu yeb nii bu bu cegee doo gis nombul boobu ñu am na ay nit ñoo xam ne di leen soupçonné yàgg leen soupçonné am ñaari jigéen ñoo xam ne day yor ay rab biñ daanoo ay rab ñooñu ñoo feeñee affaire yi ñooñu ñoo joxoñ ñooñu ñoo wax moo waral gars yi soupçonné leen téye leen ña xeex xeex bu métti si gaal gi ba gars yi ñoo leen mujjee jekku parce que ñoom li ñu rey dafa bari ñoom ñi ñu rey dafa bari am na si ñoo xam ne ñaari nit ñoo xam ne gaal bi tourné na ñu jàppal leen parce que da leen sóob da dem ba si yàgg ñeneen sóob nee kenn ñu yuuxu nga dawaat tuuti ñeneen sóobaat nee kenn ñi ñu yuuxu mais yooyu yëpp borom gaal gi day tourné di dara ma xool ki ñu sóob pour mën ka jàpp te yooyu yëpp buy xew guddi gi lay xew. sëñ bi dund bi ma dund nii si gaal gii mosuma ko dund suma àdduna li ma gis man instant bii su gisoon gaal bi ma doon fay ay milliards du ma dem xamul tax parce que dafa am loo xam ne dama ko yàgg dégg te ma ko def tey jii ma gisal ko sam bopp man mënuma imaginer nga gis nit normal nii muy lekk yàpp boo xam ne yow yemoo yàpp si gaal bi su ma diggante yàlla yàpp bu ñor mu toog nii di ko lekk nii su ma diggante ak yàlla barki Seydina loolu man gëw woon loolu man suma àdduna kooku xaw ma gars yi dañ ko rey xaw ma sax xaw ma nu mu demee kooku xaw ma mu ngi si gaal gi xaw ma mais gars yi kooku jàppoon nee ko ba yeew ko parce que gars yi day noonu ku si doon ay nit guddi ñi si rax di leen jàpp ba ñu dëgër ñu yeew leen bu ko defee ñu bañ ñu sonal pour ñu mën a àgg mais à la fin demee ba xam ne gaal bi du àgg buñ continuer ba suba ak jàmm. ba suba ak jàmm kay. suba rek incha allah. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère mi ñu indil gam bi di vite fait optique vision plus Sénégal borom lunette partout et pour tous savon bu baax bi te efficace di savon créole Real Mix Premium Energy Drink batterie automobile Sisa ak Africa Fly ñu ràññee ko lool ci réew mi ci assistance visa ñoo leen doon may seen émission xalaat.